nan a def. déedéet waaye yow tamit bul wax loolu damaa amul woon crédit moo tax woowu ma maa ngi nii boutique Poulo sax doon jënd crédit. waaw woo na kay. waaw waxtaan nañ. dil bi ma mat na ni ma ko waxee woon laa ko defee. non déedéet na bu ma ko dee dama koy mbaraan rek. ah déedéet jànk nag bàyyil yooyu xam nga ne na bu ma ko. jaase moomu lu ma koy doyee ak baxanam bu ngande boobu di mel ni gros suukar yow daal bul wax dara dinaa la jox sa waana instant bi maa ngi boutique dinaa jaar sa kër ak. hey koolam boo tuddaatee su ma tuuti affaire ñax faade léegi mu nokk la joon yéen kale yi ngeen kanaa boo gisul yàlla suñ borom sax boo ko rusul nga rus ñun ñi taxaw yow kanaa waroo nga nekk fii di dog am di fen rek. damaa wóor kay Poulo. koor ko mu naan dama war su bëti dijj yi nga nekk looy pu pugal i pour lu koy waxal he kam umala jugal fii mbaamu noqu la sa bëti rëy man dum kale dum yab de dema si yoon dema woor wax bari ji tal ko di wax fenkat ah man waxal xaaral ma ñëw man sama copain c'est un avocat tu vas voir waaye Café kii di wax man sum copain avocat la ko xaali ko he bëgguma mom kess de wawal sa baay ak si yaay sa copain bi baayam ak yaayam ak seen chef de quartier kon ngeen ñëw ma naq leen yéen Poulo, où es-tu Cette fois c'est fini, je vais t'envoyer en prison. Poulo, sors de là si tu es un homme, espèce de tapette. Hé, hey, monsieur l'avocat, quand tu tapette, là nous Ah bon Tu sais pas ce qui se passe la fille que tu as insultée, eh bien c'est ma copine, Poulot. Tu es un idiot, Poulot. Cette fois j'en ai marre, je vais t'envoyer à Rebus. mettre de godium, j'en ai ras le bol. Y'en a marre, Poulot. Monsieur l'avocat, au fond de xale bi noobu la daf lay nax loolu problème DFM kii mbaraankat bu mag la xam naa si je bi la dëkk yaayam sax day tais-toi Poulot arrête de mentir soo ko waxatee loolu je te casse la gueule répète ça soo mes fit léegi nga gis sama de neen. hé kam laa la l'avocat yow yaa ngi bëgg soof am ah, xamoo ku lay neexal dara si yoon mintee sa bopp bu gàtt bi di mel ni naajo mintee sax <laughs> kooku ko naan de jël pause mel ni torti nimsa Donatello borom biir bu rëy boobu ii torti nimsa man ngay waxal torti nimsa pulo eh monsieur l'avocat bul topp sa xol yow tamit àndal ak nabi ma bañ je refuse d'être accompagné par nabi man ngay wax torti nimsa attends-moi ici su dee gonga je reviens maa ngi ñëw waaye kam naa la wax woowal seen waa kër yëpp boo ko mu ne xool ko ak gàttaayam bi muy mel ni cinu mbana bu ndaw teman si yoon yaa bolo ma saari doom moom continuer yaa waa tugune waa tugune aw ni yaa tugune tugune yaa tugune